te identifié. Fofana. Mm. waaw El Hadj. ngeen ma une minute rek. mu mm. nuy leen ziar leen. Mm-hmm. baalu ñëpp àq. Mm-hmm. baalu Sénégal yëpp àq. Mm-hmm. baalu Sénégal àq baal Sénégal yëpp àq. semaine bii wala ci weekend bii. sama tur fees na lool. ci lu juróom-ñeenti tur seq mais jàppewu ma ko nattu dama koy sante yàlla ndax man am naa tur am tur ndey ak bàyyi sama doom Mamadou Moustapha Diop la tur comme ni mu tuddee Mamadou Mansour Diop am na tur am na turu yaay ma àndaloon defi njombe am na tur ndey am na turu bàyyi moom am na tur ki dee ci seen loxo am na tur am na turu ndey am na turu baay ça fait neuf personnes. Mhm. waaye yàlla dogal na ñépp benn tur la ñuy tudd mooy le fils de Mansour. Mhm. man nag jàppewuma ko nattu. Mhm. dama ko jàppe ak sant yàlla. parce que population bu Sénégal bu amee dix sept millions personnes. dix sept millions. nga juddoo ci benn village bu tuuti. yàlla di la dimbali ba fu ñu la tuddee Sénégal ñëpp xam la. ba bu kenn defee njombeem sax bu ñu ko identifier identifier ko defe naa ni liggéeyaloo yàlla wala nga gën waa Sénégal walla nga lebal leen li tax fu ñu la tuddee ñëpp xam la. bu la yàlla defalee sutura defal la teraanga nga sos kër sos njaboot yàlla may la fukki doom ci biir doom yooyu mu la may ñëpp nekk ci sa waaw ku nekk di jàng ngay def ci moom yar bi sa baay defoon ci moom. yàlla génne ci kenn ku la tër lu mat fukki at nga jooytu ko képp koo am kenn kooku la tër bu defee njombeem bu fekkee delloo ko ci nattu yi yàlla di nattoo ab jaamam. Mm. ma xam ne doo jullit doo gor. Mm-hmm. assumé naa toutes mes responsabilités que xale bi def li bon et mon fils waaye moom rek mu nekkul ci samay doom yi may contrôler comme ni ma sama papa jàngale woon yar ma def ci moom yar boobu malheureusement damay nangu ne sama doom la mais ma boole ko ci nattu yi nga xam ne moom la ma yàlla nattoo. Mm. ba mu ñimee def man bàyyam lu mu ñëwut a def. ba muy dem foo xam ne rakkam du fa dem amul kenn ku fay dem sama ay doom mm. kon damay jàpp ne nattu la mu mm. ma yàlla teg ma continuer nag di demander la justice que chacun assume ses responsabilités il a deux ans que justice fait son travail ma mm. continuer aussi di prôner toujours que faw ñu delloo si waat Sénégal peine de mort man gënuma kenn sama doom gënul kenn bay def naka su dul noonu te dara du ko ci fekk maa ngi demande justice def liggéeyam maa ngi demandé ñu delloo soit pen de mort mais maa ngi demandé itam ni nañu ma baal ma baal ñëpp itam baal naa ñëpp. Mm. parce que tax ma baal naa ñëpp mooy Mansour de day liggéeyi wàcc dem këram toog. uuf ay njabootam nekk dans de très bonnes conditions. alhamdulilah. Mm. Mm. sant waaye nag doom ju fàqee ko ci man itam. man may baayam waaye doom joo xam ni dëkkul ak yow. nekkul ak yow te def nga lépp pour moom mm-hmm. <laughs> loolu nga man mm-hmm. moom bu optee leneen nag ñu askanale la ko nangu naa merewu ma kenn nag lu ma ci waaye tudde merewu ma kenn mm-hmm. waaye dama ko sant yàlla ndax gënuma waa Sénégal lu tax fuñ ma tudde ñëpp xam ma liggéeyalu ma waa Sénégal liggéeyalu ma yàlla lu tax fu ma ñëpp xamee su ma amee benn doom bu mel noonu dama koy dugal ci dàmbak nattu yàlla ndax innama amwaalukum wa awlaadukum fitna ma nangu ko te sant ko yàlla bu baax te demander justice def liggéeyam demander itam ñu dellu si peine de mort parce que nit di fo du fowee jamais ak bakkanu jàng ngeen baal ak wasalaamaaleykum je pense que sa sax jarul sax commentaire foofu parce que alaaji li mu wax tey njëkkee na ko wax na ko wax na ko avant fii ci tës bi wax na ko fu ne yàggul euh, chimère chumère loolu buñ ko mënoon am rek yàggul toog na fii moom alaaji ne jël na doomam yóbbu gendarmerie tës bi na toog di ko wax yàggul mhm. wax na ko wala waxu ko boo amoon loolu rek nga may ñu ko rek ay weer ci ginnaaw la je pense yàgg na ko wax may ñu ko rek na ko jàmbat yàlla mi ñu xam na loolu jàmbatee na ko fu ne lii moo ci suñu commenté na ko fu ne waaw te loolu moom bu la ko ñëpp seedalee moom daanaka yow moom sa responsabilité dégagé nga ko. Hmm. dégagé nga ko. xale boo ko juree. ajali ko màkk sax. ngir mu baax. alaaj ajal na màkk 2015 doomam pour mu baax. alaaji day toog fii ne ma sa rakk ja génnee naa ko. ma ne ko lu mu def mënuma lii la def maa jël sama oto yóbbu ko gendarmerie ban ma ko kalaamee. alaaji moo njëkk nekk victime doom ji. ci mhm. leneen ak leneen ak leneen. loo xam ne mënuñu ko wax. mais man man dafa am lu. donc jarul sax ñu ci ñu ñu dama ko fekkee pour wan la na rek. moom jóoba juba jaanam wàcc na. ànd nañ fii ci otoom ñu taxaw fii di waxtaan ci bopp koñ. ko jël seen kaw jël mhm. ci bopp koñ. ma ne ko waa sa waay dama boobu mu ne ma déedéet parce que dafa am oto bu ma doon jënd pour Moustapha. laaj ma oto bi lan la. Dodge mi ngi noonu yow gis nga oto bi. fekk naa lépp. bu baax ba muy mottali waa xaalis bi ñun ñaar ñoo ko. loolu kenn du ma ko nettali man maa ko. utal ko bergerie d'une dizaine de millions. dama ne. mais ku bëgg bon nag mënoo ci dara. dama ne. nattu yàlla pour jox ko nit. def la navette entre biir mbuur ak suma nag yooyu te mën ci teg. wallaay pour am si lu mu jàpp rek mën a bàyyi yenn yi. alaaji gàcce ngaalaama waxuñu nag yeneen yi waxuñu nag yeneen yi mais gàcce ngaalaama tey yal na yàlla may lu xolu muñ rek te ñëpp mm. xam nañ ne ah, yàgg nañ ko wax ci tës bi de xale yi wallaahi ñooy nattu seen waa li nga xam da def loo mun nga war a def rek na def gàcce ngaalaama ku la fekk fële déglu la alaaji waxoon fan yee ci doom ji déglu tout le monde loolu koy def jàppale woo sa doom baax jàppale woo ko de baax na waaw baax na jël ko yóbbu ko ñu gars yi la ko moo gën koy bàyyi ci kër gi. jooyloo sa yaay rek. baax a yàlla musal ci jooyloo suñuy ndey. dafa muy mujj. baax dañu hmm. bàyyi nëpp nëppal doom. mooy dëgg de donc bu tooñee da nga koy teg ci yoon. mooy mhm. yoon de. donc du fay way juróom. Mhm. wallaahi dëgg nga wax. wallaahi dëgg nga wax laaj. dëgg la bii bii nga ci mujj bii bii maam bii. Mhm. sama doom yàq na oto jàmbur ba nag bëgg a daw. gaañu ci dem hôpital ànd ak ay copains ñu koy nëpp nëpp li jéem a jaay affaire affaire yu guerrier. ñu ngi koy déggee sama kër. damaa taal sama oto ñu fekk hôpital ba mu nekk. booy bëgg ko génn rawale ko mën leen aw aw leen sama kaw ba noppi. taxaw fa woo ki mu yàq otoom woo gendarmerie ñu jël jël ko jël ko yóbbu. Hmm? billaahi wal azim bii avant may ñëw fii avant may ñibbi si ñëw jël ko yóbbu gendarmerie mën leen na fay ki mu yàq alalam. Hmm. parce que fekkoon da ko yàq toog ñu négocier ko mais da koo yàq bëgg a daw ba noppi jëli ak gàngam. ay copains ñu koy jéem a protéger. ba ni booy booy gàngi xoolal ku ni ma perme toi yow dugg ci sa. ba kenn ni ma nga boole ko. damaa ci ko bouger. woo ko woon oto bi mu ngay doon responsable. léegi anamu. ma la ah ci loxo gendarme laa ko bàyyi di ko ñu gis. daa ñëw balaa kay. barke salaatul bii nga ci mujj bii. non da nga dem. c'est vrai toog ma fekk ko fa dinaa négocier mbaa ma fayal ko mais da tàggu teg diil ànd ak ay copain daw koo tàgg da koo yàq alalu waa ji bu noppi teg gaayen bi daw daw koy wan ne nii la nii la ñu yare yéen bien chati bien alaaj lay doxalee xam naa ci lu bari ci benn fekk fekk booy yar da yar ay moto ci wéru hôpital ma ni waajaa ngi fi li paa bu sadik baa ci lenn xale yi nag ñoo sa seen tëwu bopp mu ngoog ñu dem ci ci Kaffrine Kaffrine la ñuy jëm laata ñuy dem Kaffrine ah euh, Djibril Dramé dafa réeral permis de conduire mi ngi fii ci kër gi Djibril sa permis de conduire nga juddoo ñagas mi ñagis. Euh, ñagis mooy dëkk kër ga de ministre ba nu mu tudd. Mhm. ministre microfinance ndaw sa. Euh, Victorine Victorine Ndeye Andy Moustapha Ndiaye. Mhm.